bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy xam-xam bu rëy ci yàlla ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam audbillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman dellu siwaat nañu di àndaat a yéen ci seen émission bii di axiru zaman di jaajëfal ñi nga xam ne nii yëpp ñooy seetaan fu ñu mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp gi émission bi émission bi weesu ñu ngi nekkoon di waxtaanee lu jëm ci wàllu élection Miss yeeg lu ci aju euh, wane ni nga xamee ne léegi tasaaroo na ak yenn yi nga xam ne mujj na cee xew di ay scandale te mu dëkk cee xew na comme niñ ko waxee ci émission bi weesu mosu cee jóg loolu lañ nekkoon nag di fàttali woy juri seen taxawaay bi ñu war a am waaye di wane yi tamit ne mbir la moo xam ne mu lislaam ŋàññi la ndax jigéen wala yubdina zinatahunna la sunu borom wax taaram pour jëkkëram mais pas mu koy jaay taar du lu ñuy jaay ci jigéen yàlla xam na ne moo defal jigéen taar bi muy wane ba tey ñeneen di ci profito jigéen nag la xaaj fàllu siise doon wax rek moo ci nekk angoro rek ko ko jig buy détaillé di perte te angoro léppi jigéen la taaram ci biir angoro bi lay dugg waru koo détaillé bi mu demee nag ba di ko détaillé la ko ñeneen di exploité di ci jëriñu moom mu dem ba ci loro di di jàmbat di ñaxtu di wax ci ay telee ki rajo lu ñu dund lu métti ca élection miss ya fekk li leen ko jural yépp mooy teggi ndigalu yàlla sunu borom tabaraka wa wax na ci alquran ne euh, ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla nañu moytandiku di juyaloog ndigalu yàlla yi euh, ak yi nga xam ne moom la santaane nañ ko def nañu moytandiku di wàcc yoon woowu noonu la buñ ko defee fitna bu rëy moo leen ci dal wala mbugal mu métti ëllëg yomal xëyam fitna bi nag fii ci àdduna lay tàmbale te mooy yu mel noonu rek yàlla noon na la wax waqarna fii bu ku buyutikunna wala tabarajna tabarujal jaahiliyatil uule euh, jaahiliyatul uule na ngeen sax ci seen kër yi bu leen sol seen mm, dàll fu leen neex ngeen dugg fa nu leen neex ngeen mel ko yàlla loolu mu tere woon jigéen bi mu lànkee dem na mi ngi wane taaram ci la ko fit na dal ba muy wéy di jàmbat loolu lañ nekkoon di waxtaanee ci émission bi weesu di sant ñi nga xam ne ni yëpp ñu ngi ko doon topp tey nañ ngi am mbégte ci dalalaat koo xam ne nii du euh, gan ci émission axiru zaman di yoon wu njëkk tamit ñu ko fiy dalal waaye tamit ñaanuñ yàlla mu doon yoon wu mujj wuñ ko fi dalal ngir mm-hmm. yàlla bokk gi mu bokk ci émission bi bokk gi mu bokk ci liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko seq kooku mooy Serigne Babacar Mboup su ko defee dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ñi nga xam ne nii ñooy seetaan ñu dikk ak moom ci li ñuy fas yéene waxtaane tey incha allahu taala sëñ Babacar salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah <clears throat> wa barakaatuhu. Euh, Cheikh Makhtar maa ngi lay fay nuyoo di la delloo ziar di nuyu mbooleem euh, internautes yi ak euh, téléspectateurs yi. nga xam ni ñoo ngi topp canal télévision bi di am mbégte bu baax ci <clears throat> jotaay bi nga xam ni ñoo ngi koy amal di ci sant yàlla itam ndax euh, ponk yi ñu fi war a waxtaanee dafay yoo xam ni euh, daf ñoo yitteel yitteel ñu laal ci sunu dund war a laal tamit sunuy dund njaboot ëllëg te loolu nag di responsabilité bu rëy boo xam ne dafa gàll suñu kaw ñu ñëpp euh, ba tax na kon question la yoo xam ne war nañ ci gën a imprégné wu comprendre ko xam enjeu yi xamit fa mu jëm dana ci am solo ndax euh, dafa mel ni jàngali ngeen ba sonn waaye da ngeen di faral di wax ni ab sàcc moom ab sàcc kuy këfaatu am na lu muy bañ ma ngee wuub ma wuub daal lay bañ mm-hmm. kon nag du ñu tàyyi ci ni mangee wuub ji <coughs> ndax dana am lu bari loo xam ne mën na ko saafara. macha allah ñoo ngi am mbégte bu baax. macha allah jërëjëf sëñ Babacar ñu ne ñu ngi am mbégte bu baax ci dagg gi nga dagg sa te ñëw wuy sinu tey mbokk yi li ñuy waxtaanee rek day delluwaat ci ànd sàmm jikko yeeg liggéey bi nga xam ne door na ko ba fi mu toll. waaye yi nga xam ne yeesaat na ci ñi ci biti ak yi nga xam ne danañ ko bëgg a sànni ci réew mi seen mbalit yi nga xam ne ni moom la ñuy xëppee ci seen réew ñëw bëgg ko sànni ci sunu réew. Euh, waxtaan wi sax foofu lañ koy dooree mooy union européen ak yi nga xam ne ni jël nañ ko ne dogal waaye lëggi-lëggi waxtaan wi mooy ànd sàmm ko yéen ñëpp xam ngeen ne le 23 mai 2021 bii ñu nekk woote woon nañ fële ca euh, place de l'obélisque mooy place de la nation euh, li waraloon woote bi nag mooy woo sénégalais yëpp ci yëgal leen ne wër nañu quarante cinq département yëpp ci Sénégal mm-hmm. gise nañu mbooleem kilifa yi nekk ci tund yooyu gox goxaan yooyu ci kilifay diine ak kilifay aada ba ñoom ñëpp mànkoo nañu dëppoo ci ne dañoo bëgg ngóor jigéen jóge ci sunum réew euh, fa nga xam ne nag fa lañuy nasee ak di fa noccee sunuy sarti réew dañoo bëgg ñu dem fa nas sart yu dëgër yu leer yuy wane ne réew mi bëgguñ fi ngóor jigéen ku ñu gis nga koy def di ko fésal wala ñu la cee jàppale dana njëkkati daan yu sever teg ko ci sa kaw woote bi looloo ko wundoon mbooleem euh, kilifa yi nekk ci département yooyu noonu leen ñu demoon ñu dëggal ko ci njiital sëriñ Babacar mii di coordinateur bi waaye mboolem sunuy xalifa généraux yi ci réew mi ñoom it dëggal ko ku nekk signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen mbooleem ñi jiite association islamique yi kenn ku nekk moom it signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen loola nag ñu woote woon ci la 23 mais bëgg nañoo xam fan la toll ndax boobu ba léegi yi ñi ngi laajte fan la seen euh, woote ba toll mbirum góor jigéen ñi fu ngeen ci toll. Hmm. loolu incha allah sëriñ Babacar danañu ci dikkal bu soobee yàlla ci biir waxtaan wi. waaye tamit euh, la onze bii ñu mal muy la onze decembre incha allahu taala muy samedi ji ñëw bu dellu see fële ca mosquée Ina Chafé nga xam ne fa la ànd sàmm jikko yi njëkk a woote. Hmm. fa la ñu woote waat conférence de presse moom itamit incha allah sëñ Babacar. dana ci dikk lan moo wundu ànd sàmm jikko yi woote fa conférence de presse. loolu yëpp dana feeñ ci biir waxtaan wi allah allahu taala su ko defee sëriñ Babacar ñu dooree rek ci euh, ñële nga xam ne ñoo nekk ca tugal di waa union européen mu mel ni am na yu ñu mujj a génne ay santaane mm-hmm. yoo xam ne nii santaane waat nañ ko am yu ñu joxoñ ci suñu tëralinu réew mm-hmm. bëgg yuñ ci soppi ak yeneen sax yoo xam ne nii xëy na mm-hmm. yuñ ciy dolli la loolu noonu le euh, lu mu doon jërëjëf euh, sëñ Muxtaar lii ngay gis nii yaakaar naa ci bi dana ko mën a jël. Mhm. gis nga ko mooy rapport deux mille vingt et un profil genre Sénégal lii moom Union européenne ñoo ko def. rapport mille vingt et un. rapport deux mille vingt et un. Mhm. kii woote nii moom. Mhm. rapport genre gis nga. rapport genre deux mille vingt et un. bu Union européenne. naa ko gën a agrandir gis nga. gis nga. profil genre profil genre donc gis nga ñu def ci ay sénégalaises <coughs> rapport bi dafa doon rapport boo xam ni jàpp naa ni sénégalais yëpp war nañ koo jàng ku ko ci jàngul war ngaa may nopp ku ko jàng. moo tënkal la li ci nekk. waaye laa nga wuti ko la ko jàngal nga xam liñ ci bind lan la. lan moo ci nekk. rapport bi. Mm-hmm. <coughs> Union mooy France Portugal itali euh, Allemagne euh. am nañ fi seen ambassadrice dañoo toog Sénégal seetlu yu bari ni Sénégal dafay doxe doxin wu dëng li muy def jubul ndax dafa am ñu ko dëkke muy aw góor ak i jigéen ñu jël góor ñi teg ca kaw jël jigéen ñi toroxal leen ñu ni léegi nag kon dafa am ay jëf gis nga Mm-hmm. pratique préjudiciable lañ ko tuddee loo xam ne ay lor jëf yoo xam ne ay lor da cee da ciy soqi ko te loolu nee nañ réew mi ni mu nose moo nose noonu jox góor ñi ay sañ-sañ ba noppi xañ jigéen ñi loo xam ne euh, kenn xamul fan lañ ko teg mm-hmm. ñu ne loolu nag mm-hmm. dafa war a soppeeku <coughs> euh, Cheikh Makhtar da nga may may ma liir li ñu wax nii du lu gudd du lu gudd ci li ñuy tudde ñoom pratique préjudiciable Euh, ba ñi jàng français xam ñoom lañ ci wax ku ci amul temps wu gëstu rapport bi. nga dégg ñu dégg ko. Mm. xam nga ni senegal ñun ñëpp xam nañ suñ taarix réew mi ni mu bindoo ak kilifa yi nga xam ni tey jii ñun lu ñu yëg ci ak mbaax ak di ko xeeñtu ak di ko bëgg ñooñu seen i taxawaay yi mooy jeexital ci ñun ñi ci loolu moo ko waral ñu taxaw fi taxawaay boo xam ni bu exemplaire la muy ci code de la famille. Euh, yaakaar naa am na waxtaan waxtaani nañ ko fii sax. Mhm. code la famille boobu nag la tubaab yi wax ni union européenne. ñu ni le code la famille contient de nombreux. man nga fàttali tuuti ndax am na ñoo xam ne. yu bëri euh, mën na leen a rëcc. Mhm. balaa dëkk ci texte bala ñu dëkk ci texte baax ñu xam. Euh, cosaan la dëgg exactement. xam nga li ci mujj rek maa ngi ci benn télé am lu ma ci doon corriger. ñu bari wax ne biñ koy tëgg kilifa yaa ngi fi woon ànd ci yu mel baax ndaw ñi nga xam ne dégg nañ yu mel noonu tamit am ci leeral. ñoo ñu kon xamuñu benn départ pour texte bi nga. ñooñu xamuñu taarix. Hmm. xamuñu li xew te xamuñu li amoon aussi. xam nga Sénégal bi muy jël indépendance déjà mag ñi sax daje woon nañu waaye code de la famille moom dañ koo dabaatal ndax boobu am na yeneen enjeu ak ay mbir yu ñu doon lijjanti moo tax ci ay années soixante dix lañ ko Senghor proposé soixante onze bi mu ko jotee Euh, janvier 1971 kilifa yëpp daje nañ fii ci kër El Hadj Seydou Nourou Tall euh, waxtaan càmbarko ko génne jafe-jafe yi ciy nekkoon yëpp génne nañ ci pratiquement soixante quatorze article yoo xam ne lu ci weddiwul wax yàlla weddi na waxi yonent mag ñi biñ ko gisee ñu ne lii euh, jafe-jafe ak musiba mënta weesu lii bi mu ko defee def nañ ci ay démarches ci gisee président wax ak moom xamal ko it li ci seen position xamal ko sax ci biir euh, recommandation maanaam euh, mémorandum bi ñu defoon ci lii buñ koy tënkati nañ koy tënk ci arab di leen ko jox ndax ñoom jànguñu français te yëf yi buñ ci demee ci ay traduire kii texte baa ngi nii xaaral ma traduire la loolu mën naa tronquer sax liñ doon wax texte yi nañ koy def ci arab ndax ñoom ñi kilifa yi arab boobu lañ lañ xam ak yeneen yu baree bari yoo xam ne si defoon nañ ko ci mémorandum bi biñ ko defee wax ak président président leen seen i propos seen seen li ngeen wax lu yanumaanaa la lu jaadu la kon danañ ci bàyyi xel boole leen ak premier ministre Abdou hmm. booba fekk na wax na ak Abdou Diouf li muy wax ak moom loolu la ñuy wax toujours ci ñoom seen yëf dafa am caractère bu officiel ak bu officier hmm. li officiel mooy léeg li ñuy biral nii hmm. li officier nag mooy li ñuy déggante ci biir te mooy li ñuy faral di gën di jàpp mu wax ak moom président Abdou Diouf it ni leen moom dana ko dana ko def Euh, moom jullit la donc li ñu bëgg lay def mm. ndax xam na ni ñooy kilifa yi ndax xam nga ni fu Alaaji Abdou taxaw mm. moom kookoy senegal mm. sëñ Cheikh Mbacke taxaw kooku mooy Sénégal Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass taxaw kookoy senegal ak kilifa yi ñu àndaloo ñëpp ñu taxaw seen taxawaay bu rafet boobu <coughs> ni lii mënta jàll te du fi jàll dañoo jékki-jékki rek jàllale assemblée national te la ñu waxante woon ak ñoom defuñu ko. defuñu ko moo waral ak jotaay boobu nga xam ne da koy faral di nettali. Mm. bi ñu demaatee wax ak wax ak wax ak wax ak wax ko te El Hadj Abdou doonoon porte parole mm. wax ko kàddoom yooyu mu ko wax nga xam ne mi ngi riir ba tey jii. Mm. ah ci la ko waxoon président Senghor neexul ba neexul mais yow kuy yabaate. <laughs> ba Makhtar Kébé maa ngi koy nuyu. day toog jotaay laa déggoon mu koy nettali. macha allah. muy kadd yu symbolique. ak yabaate mënta weesu lool. yàlla bi muy sos muy sama samawati wal ard. di fent yi mu fent yëpp mm. yiñ ci gis ak yi ñu gisul yi ñu xam ak yi ñu xamul euh, teg euh, euh, ay tëralinam muy sunnatullahi mm-hmm. nos ko doxal li muy doxal ba noppi ñu ñëw bëgg ni léegi loolu dañ koy contredire dañ koy weddi mm-hmm. loolu ak yabaati nu koy wesu mm-hmm. yàlla xam na ko bi loolu amee ñoom noonu lañ ko jàllale kilifa yi ni leen nag loolu te muy lu am solo loo xam ne ñoom war nañ koo xam kilifa yi ni leen loolu duñ ko appliqué duñ ko appliqué alaaji abdu ñu leen moom dana ci mm-hmm. bu demee Tiwaawan dana ci dana ci dana ci def xutba mm-hmm. dana ci wax ak ñi mu ciy waxal aussi ñu xam ne lii moom àndu ci te ku ne xam na ni taxawaay mit seede na ko ca ca loolu sëñ ma ñoon man yoon laay mii loolu la waxoon <coughs> ni code bi du dox Cambérène ak Yoff sëñ Abdoulaat ni code bi du dox Touba mm-hmm. ak lu aju ci Touba donc kon kilifa yi fi nekkoon yëpp noonu lañ def léegi lu fi desoon dañoo kii di ko duut duutal di ko duut duutal ba finalement kilifa yu jógee fa donc ñu imposé ko ñu ko tey nii. Mm. mais li sénégalais war a xam mooy ni mag ñooñu taxawaay bu nekk am nañ ko ci pour contrer ko woon. waaye ñiñ seqaloon réew mi. Mm. ñoo dul ay nit ñu sàmm seen kaddu. waxanteeg ñoom ba noppi dem def leneen. Mm. loolu moom mooy li am. waaye mag ñooñu xeex bu ne xeex nañ ko ci. li ñuy wax it ay firnde lañ ci am. xëy na du ma la génnaale nii waaye document yëpp ko yor. effectivement euh, yor nañ ko donc seen procès verbal ñoom ñoo relevé woon sax article yi nga xam ne moo am problème. ba mm. sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mm. bind ci livre. Mm. waaw ba kalimatullahi hiya al ko wax ko ca yu bëree bëri allah jab du bind ci. la bindoon kitaabu rabbinaa huwal kitaabu tamassaku bihi huwa sawaab. ma ci biir mu ne wa maa lanaa kot siwal qur'aani wa ghayruhu fa huwa kotu seytaani. wax dëgg <laughs> ñun nag suñu kot moom alxuraan ci lañ koy tibbee. kon lu wuteeg loolu rek kotu seytaane la loolu moom mooy li am mm-hmm. sëñ Maxtaar mm-hmm. alors kon ñooñu nañ xam ni suñu kilifa yooyu <clears throat> xeex nañ ko kem seen kàttan ci honnêteté sincérité dëggu bëgg seen réew ak topp ndigalal yàlla ak yonente bi mm-hmm. ñañ seqaloon bokk réew mi ni leen nangul nañ leen li ñuy waxoon noppi génn def leneen loolu mooy li li mat a jàpp waaye amoon nañ ci ay acquis ndax am na Senghor am na yoo xam sax bàyyi woon na ko xel quand même amoon nañ ay yoo xam ne amoon nañ ko ci loolu nag la Union européenne wax ni mhm. ak jeng la te mi ngi lor ñi muy lor nañ la mooy jigéeni Sénégal. maanaam code boobu la Union européenne ñëwaat songaat ko songaat ko nag. mais gis na ci yoo xam ne sax dañ ko war a dindi waat. dañ ko war a dindi ndax. dafay nga xam ne suñuy kilifa juróom-ñaar fukki point lu topp yu dëppoowul ak lislaam gis nañ gis nañ ko ci ñu ko doon xeex. Union européenne daa bëgg mu yokk léegi. subhanallah disposition yi wedd yàlla yonante bi dañ ko gën a yokk 74 rek tuuti na. liñ ci mayekas yàlla tuuti ñu dindi ko. <laughs> ñu ni mhm. euh, gis nga pratique préjudiciable mhm. la ñu tiitre ci kaw ni mhm. ñu wax ni mooy jëf yi nga xam ni dafay indi ngaañte dafay indi lor loraange ñu ni le code de la famille contient de nombreuses dispositions discriminatoires notamment des dispositions relatives à l'écart entre lage minimum des jeunes hommes et des femmes des filles pour se marier au rôle de chef de ménage du mari au choix du lieu de résidence de la famille par l'époux, au nom du père octroyé à l'enfant, à la polygamie, à la discrimination sur les conséquences de rupture du mariage et de la, à la discrimination à l'égard des femmes musulmanes concernant leur droit à l'héritage lan lañ wax mm-hmm. dañoo wax ni mm-hmm. code de la famille bi nga xam ni suñu mag ñi taxawaay bu ne taxaw nañ ko ci te relevé woon ci 74 articles rédhibitoires ñoom Union européenne dañoo wax ni dañ cee gis ay dispositions yoo xam ni maanaam dafa jeng dafay boddee discriminatoire dafa boddee te boddee googu nag nee na mu gën a jëm ci jëmmi at yi nga xam ni xale bu góor bi ak xale bu jigéen bi am nañ ko ngir ñu mat a sëy nee nañ ak boddee da cee am ndax bu dee góor xam nga 18 ans lañ bind ci code bi jigéen 16 ans ñu ni loolu ak boddee la des koo war dindi. yóbbu jigéen ñi tamit ci 18 ans nga xam ni jigéen ju ci amul 18 ans sa baay wala sa mbokk sañu laa maye waaye nag sañ ngay farantu ba jëlee ci ëmb te kii donc mariage euh, précoce la ñuy tere waaye terewuñu. sexualité sexualité précoce. donc ñu ne âge boobu nañ ko relever. donc loolu ak jeng la yóbbu ko 18 ans. muy benn <coughs> au rôle de chef de ménage du mari maanaam. Euh, euh, li nu gàll kii kilifa kër gi muy boroom kër bi ñu ni loolu tamit ak jëng da ci am ndax kilifteef gi xam nga du góor rek ko ko war mu ni beneen bi ci des danaa ci ñëw ci détail parce que détaillé nañ ko lii dañoo dañ koo tënk noonu rek ñu ni beneen bi ci des jëmmi fan la soxna si walla njaboot gi di dëkk lan moo tax góor gi di ko tànn xam nga ñëw ñoom yar fi yee fitna bi mm. lan moo tax njaboot gi fi muy dëkk borom kër gi soxnaam ba yàlla di leen jox njaboot fan lañ war a dëkk lan moo tax góor gi di ko tànn li yàlla waxoon askinahunna min haythu sakantum loolu na dañ na ngeen na ngeen seen njaboot seen soxna fi ngeen dëkk ñu ni loolu nag moom loolu am xel nangu ko góor waratul tànn fi waratu ko tànn du moo ko war a tànn c'est-à-dire fu mu koy tànn rek jigéen ci it am na sañ-sañ tànn aussi te gis nga loolu li mën a impliqué mu ni au nom du père octroyé à l'enfant jëm sant doom ji ñuy jox santu baay bi ñu jox ko doom ji <laughs> maam looy ree <laughs> ree doom ji lan moo waral santu baay bi lañ koy jox mm. te day ji am sant moom it. li wax Matar Sarr yor sant Sarr baayam sant Sarr Babacar sant Mbuub baayam sant Mbuub lan moo waral loolu. loolu ak boddi konte la te ñu ne doom ji ñaar seq ko ba noppi ñu jël sant baay bi jox doom ji. léegi dañoo bëgg yaay ji tamit daal. ah effectivement <laughs> ñu ni boobu disposition yi tamit maanaam ak jeng la ñu ni ak am ñaari soxna ñetti soxna ñeenti soxna loolu ak jeng la. lan moo waral góor gi am sañ-sañ ni moom mën naa takk ci bu ñuy defal certificat de mariage bi bu dee ca mairie bala ni ko code bi indi mhm. su fekkee tànn régime bi mu tànn ni monogamie benn lay jël bu dee polygamie nag mën naa jël lu bari su waxul dara yi tamit dañuy jàpp ni polygamie la ñu ni loolu dafa jeng lan moo tax loolu góor gi rek ñu jox ko mhm. ah jigéen ji lan moo tax moom it mënta tànn tànn ni am naa damay tànn ñaari borom kër wala ñett wala ñeent lan moo waral it ni góor gi rek mooy kiy décider ni léegi am naa choix ci ni ñaari soxna lan moo tax jigéen ci amul sañ-sañ ni man du ma wujje mm-hmm. benn soxna dong ngay sañ di yem loolu ñu imposer ko mm-hmm. gis nga fi nu jëm. Mm-hmm. ñu ni loolu tamit discrimination la. jëm mi jëmmi ko su amee góor kee jigéen ki ànd ba yàlla dogal ñu taqalikoo lan moo waral foofu ko googu durée de vidéité bi maanaam nit ki buy jàpp idda lan moo waral góor gi moom jàppul benn idda jigéen ñu ni ko léegi faaw nga toog nangami fan nangami weer bon bu dee ci code bi 300 jours lañ def mm. lan moo tax jigéen ji ñu teg ko lool te góor gi kenn tegu ko lool. kon fu góor ki taqali ko ku jigéen ki rek am sañ-sañ dem ca ëllëg sa ñu may ko soxna ku jigéen ki am na droit bu loolu dañ ko ko war a jox. moom it fu mu taqali ko tey suba mu daal di am am borom këram. idda jeex daal. idda nañ ko dégagé nañ dégagé idda. ak à la discrimination à l'égard des femmes musulmanes concernant leur leur droit à l'héritage ak it góor ak jigéen ni ni ñàkk tolloo ci miraas bu seen waajur génnoon ku ñu war a doon maanaam dangay gis ni góor ñi danañ am ñaar jigéen ci am benn léegi ñu ni loolu tamit ak jeng la ak ak leneen la imam bala maa dugg ci euh, détail bi mhm. da nga gis ne leer na ni kon li ñu ciblé leer na mhm. mooy diine waaw xam nga leer na mhm. ndax ay ndigali yàlla la lu fi ak sunu science bi lu mu fi bàyyi lu ñu bëgg a màmb ni léegi lii jaaduwul ñu koy def waaye yi yi ñu tudd yëpp diine moom moo tëral moo ko tëral ah. xam nga loolu kon seen objectif léegi leer na te d'ailleurs euh, baat bi ñu mujj jëfandikoo sax femme musulmane lañ def waaw concernant leur droit à l'héritage loolu nag euh, imaam di lu doy waar léegi mhm. ñu tànn ci ñeenti tomb ñun ñeenti tomb mhm. tomb yi tamit mi ngi nii ci euh, mhm. à la page cinquante et ak cinquante deux ci ci rapport bi <coughs> ñu ni jëmmi article cent onze bi article cent onze bi moo jëm ci liñ doon wax sànq ci jëmmi aaj bi nañ ko yéegee ba mu fekki tamit góor ñi nga xam ne jox nañ leen dix-huit ans waaye seize ans bi fi mu nekk nii loolu c'est discriminatoire dañ dañ ko dañ ko dafa gedd d'ailleurs dañuy ciblé sax ni l'article cent onze du code de famille de, de famille est incompatible avec les traités internationaux ratifiés par le Sénégal notamment la, la CEDEF article bi alinéa alinéa 2 ak le protocole de Maputo avec la constitution aussi mi nga xam ni nday charte réew mi it nee nañ fi ne lii code bi bind dafa safaanoo ak yii yëpp mm-hmm. te yii ñoo ko ëpp doole kon des ko war a dindi mm-hmm. article cent onze bi mm-hmm. nga xam ni moom moo wane ni jigéen bu amee fukkeet ak juróom benn bàyyam sañ na koo maye ñu ni loolu dafa safaanoo ak li convention yi Sénégal signé muy CEDEF protocole de Maputo ak surtout sax constitution bu Sénégal loolu mooy premier article bi deuxième article bi ñu ni article cent douze bi ñu ni délai de viduité yi maanaam nit ki buy jàpp idda jigéen ji délé bi trois cent jours la euh, waaye góor moom moom kenn tegu ko dara bu bëggee amaat soxna mën na koo dem takk waaye les femmes ne peuvent pas se remarier sans respecter le délai de viduité ku góor jigéen ki moom mënut a mënut daal di jóg rek amaat borom kër te toogul diir boobee yëpp xaar. ñu koy expliquer daan ni mm-hmm. ñoom dañuy wax mm-hmm. ci seeni lay daan ni bu njëkk boobu xamuñu ndax euh, ku góor ki bàyyee na ko ëmbam déet mm-hmm. ñu ne xarala àgg na foo xam ne loolu wax mënees na koo xam kon soxla soxlatul muy toog di jàpp idda <laughs> te xamuñu ne idda bi lislaam bi léegi pour ëmb kese exactement <laughs> ñu ni ñoom mën na weesoo am doom teewul lislaam bu sëyam tase dafay iddaw day jàpp iddaw bu jëkkëram dafay dafay iddaw donc kon gis nga ni ñoom euh, élément bi ñu considéré sax demeewul noonu mm-hmm. ndax li nga misaal bi nga joxe nii rek euh, mm-hmm. weddi na ko mm-hmm. nit ki bu demoon ba ménopause nga xam mu leer na ni kii am nay sët sax moom mënatul am am doom terewul bu fi borom këram jógee day day jàpp n'est-ce pas léegi gis nga principe bu l'islam lañu lañu la ñu attaqué fi nekk nii te lii dafay yell sénégalais yëpp xam ko lii tamit ñi jege kilifa yi fi fexe ba jottali leen ko. gaa yi ci ci suñu tànk. lu baax li def ñu dinañ ci dëkk ci biir waxtaan bi ay jullit la ñuy sant ñu doxal leen ko. mais absolument mm. maanaam yow jullit bi la ñuy jël financé la pour nga xeex l'islam pour nga xeex l'islam mais nag biñ lay yónni duñ tudd baatu l'islam mais ñoom point yi ñuy coxati yëpp mooy point yi nga xam ne ni l'islam moo ko tëral. moo ko tëral. loolu la ñuy loolu la donc moom la ñuy attaqué fi mu nekk nii directement te laqatootuñu. genre rapport yu mel nii sax ñu ko faral di gis dañ daan faral di jëfandikoo ay baat yoo xam dañ ciy nëbbëg yow yaay jàngat ci biir lii lu mu wund ak yooyu mais gis nga lii liñ bind tey dafa leer <laughs> beneen bi muy article cent seize bi muy ci jëm mi euh, ànd ci sëy mariage ñu ne jëmmi polygamie euh, dañu ko def benn régime boo xam ni de droit commun bu fekkente ni ku góor ki tànnul dara ci biñ koy fasal soxna liñ koy jox mooy polygamie boobu wala sax polygamie limitée ñu ni loolu nag dafa safaanoo ak euh, traité internationaux yi traité yooyu aussi dañ ci dikk parce que problème la ci réew mi dafa safaanoo ak traité yi nga xam ni Sénégal moo ko signé moo ko ratifié aussi notamment lu mel ni CEDEF bi moo xoon léegi nii ak protocole de Maputo boobu <coughs> léegi nag euh, ñoom jafe-jafe bi ñu am fii mooy euh, góor ki su fekkente ni moom moo sañ tànn régime bi su ko jigéen ki mënta tànn rek boddee am na ci ndax ñaara seq sëy bi ñu jël ay sañ-sañ jox kii xañ ko ki ci des gis nga donc ñoom seen réflexion te jafe-jafe dafa am fii <clears throat> Oustaz Makhtar mhm. mooy souvent ñoom da nga gis ni ñoom ci seen logique gu aada la ñuy nekk toujours mhm. ñoom li ñu xam mhm. léegi nag loolu ñu xam jàpp nañ ne mooy li baax moom la ñëpp war a xam toujours seen logique gu aada xam nga gis nga ñoom ni ni ni ni ni niñ sampee seen kër alors loolu nag lañ bëgg maintenant imposer ko Sénégal fi mu nekk nii ba mu génn ci seen rapport bi boo demee ci à la page cinquante ñu def ci beneen article aussi muy deux cent quatre vingt ñu ni euh, code de la famille dafa wax ni képp koo xam ne yaay kilifa kër sañ ngaa jubbanti sa doom ci art ko walla jubbanti dóor ko kem ay atam ak lu mu attan ci ak jàjji ak jubbanti ak dóor ak par rapport ak la mu def rëy ga mu rëy aussi loolu sañ ko ko muy article cent quatre-vingt-cinq bi ñoom ñu ni lii cette disposition est contraire à l'article deux cent quatre vingt du code pénal maanaam ñu ni lii dafa waddi sax euh, weddi dafa safaanoo ak euh, code pénal bu Sénégal article deux cent quatre vingt dix bi ndax moom dafay wax ni dafay criminaliser maanaam violence ci jëmm Euh, article bi nag xam nga euh, dañ koy dóor lu bari sëñ daara yi moom. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, article cent quatre vingt dix mm-hmm. ñu nit violence ci jëmm ñoom dañ ko dañ dañ ko criminaliser. ak négligence maanaam xaw a sobantal sa sa sa njaboot. <coughs> te loolu yi tamit nee nañ safaanoo na ak traité internationaux yi maanaam lu mel ni la charte africaine des droits de l'homme et du bien xam nga loolu jafe-jafe la aussi. bu ñu demee ci société boo xam ne si kenn sañatu la jubbanti sa doom déjà rek bu amoon juróomi at juróom benn juróom ñaar ba fukki at nangam amoo droit jubbanti léegi moom ku koy jubbanti ku koy wanaw yoon dañ koy bàyyi réseaux sociaux yi nii rek ak mbedd mi fi ne ñu koy ñu koy ñu koy façonné loolu musiba la di kon gis nga déjà ñoom kon négligé wuñ dara mboolem lu jëm ci biir famille boobu li tax ñu tànn ko de la famille du lu du du hasard parce que foofu la <coughs> euh, euh, njaboot gi di soqi ko déjà ci euh, ni ko borom bi tëre woon ñoom ñu fexe ba nocc ko donte ñoom du moom la ñu attaqué directement mais code de la famille bi la ñuy wax. te ñun xam nañ li tax disposition yooyu ñu dugaloon ko ci ndax ay jullit ñoo fi nekk ci biir réew. ñu ne kon <coughs> déjà cër yi leen di jox dafa tolloowut kon ak boddee la jëmmi jàpp idda yi tamit bu ko jigéen di jàpp góor dafa ko war a jàpp bu ko góor dul jàpp jigéen waru koo jàpp. <laughs> dañoo ko mm. su ko defee tamit maanaam sa jëmmi nag kooku ngeen nekk ba nga xam ne nee nañ léegi góor gi autorité parentale la ñuy wax léegi maanaam góor ak jigéen ñoo bokk yem baat ci kër gi léegi. Mm. kilifa gi ñaari bopp lay doon maanaam benn jëmm lay boobu bu ñaari jàpp ñaari bopp mm. léegi suñu instauré la ba noppi nag doom ji juddu ci biir kër ga yi tamit bu ko kenn ni ko sa sa bët bi suufa ngi ci lii ci tënk moom moo génne ci rapportu Euh, Union européenne bi nga xam ni hmm. génne nañ ko nii euh, bërkaat yi démb rek. boo jàngatee léegi yi ñu yi ñu bëgg a dugal nii yëpp nga xool ba ci biir day mel ne mënuñoo am liñ ci bëgg lu dul dañoo fexe ba benn bi ñu song ko mooy fexe ba góor dootul sa ñettee takk lu dul benn jabar. absolument. ndax bu ñu réussirul boobu tey beneen yeneen yi lu ci mel ni kilifteef gi léegi dafay séddali ko boo jëlee boobu rek léegi boobaa kilifteef gi dootul mën a tee séddale ko bu dee ñett jeeg a nekk ci biir ndax ñett jeeg bu nekkee ci biir kër gi ku nekk am nga sañ-sañ kon kër gi moom dafay tas <laughs> loolu la tuddee anarchie anarchie moom mooy am absolument mais léegi bu boobaa pour ñu mën ko réussir kon léegi lenn dong mooy am mooy ñu tabax monogamie kër goo xam ne nii ñaar rek a fay ñaar rek a fay ne muy monogamie ndax ñoom li ñuy sóoraale yëpp mooy ñaar ñaar ñi la ñuy sóoraale absolument waaye sóoraale wuñu ne ñun ñeentay nekk ci biir kër gi ñeent nag ñëpp ñoo doon kilifa c' est ça. <clears throat> kenn rek ci mën a nekk kilifa. donc moo tax seen combat bi ñu jëmee ko ci monogamie. combat bi yëpp kon fa muy final fa muy daaneel pour ñu am liñ bëgg. Uh-huh. mooy lañ réussir ci ba ci reen réewu jullit ñi léegi. fu ci mel ne Maroc mais bien sûr. boo demee ndaw si Tunisie ndaw si bu ci àndul doo tak doo tak ñaareel. muy loo xam ne kon euh, ku doon nelaw mel na ni war nga yeewu. Ah. waaw ah, yaakaar naa ko de waaw ku doon nelaw mel nga ne bu njëkk dañ daan tudd ay genre ñu naan noo lii lan la ñu naan ay définition bii la am ak bële mais bu demee ba nga xam ne li baaxoon a kës néew ci code de la famille bi ñu ne nañ ko dindi li bonoon ñu ne nañ ko yokk suñ Babacar loolu lu doy doy waar la xam nga jigéen ji nga xam ne nii dem na ba jëkkëram wàcc ko léegi kooku idda bi pour quoi mais ku digle idda <laughs> borom bi subhanahu maanaam ñoom seen combat li def ñoom leer na li ñuy def euh, lu leen leer la fan jëm it xam nañ ko mm-hmm. c'est-à-dire euh, boo xoolee depuis 1994 la ñu acharné wu ci conférence internationale sur la famille bi ñu defee woon Caire euh, xam ni li ñuy xeex lépp mënuñu ko sotti ndare di famille ci boppam lañ lañ lañ lañ lañ kii tasaare. waaw loolu nag liggéey boobu dañ cee jógal ba tey mm-hmm. te dafa am remarque bu am solo boo xam ne da nga ko def <coughs> gis nga liñ ci coqat nii ku si néew yooyu yëpp mënuñu ko réussir mm-hmm. tant que mu euh, polygamie mi ngi am parce que naturellement nii rek fi mu ne bu ñu nekkoon ci euh, kër gi nii sax ma sama ñaar ñetti soxna wala ñeenti soxna xëy na am na ci koo xam ni jàng na mën nañoo def ay théorie yooyu jàng na tubaab ñu sol loolu ci mu koy jéem a incarné mm-hmm. ñam nekkal ci kër ga ñoo ko dul def ñoom mm-hmm. donc xam nga du jàll. day mujj fekk si la. exactement donc moom déjà dana xat kon ci kër ga dana xat feneen suuf sépp dana mujj xat ci moom ba tax na kon. ñoom seen combat bi fi ñu ko mën a orienté pour am ci ndam rek mooy nit ñi ñu découragé polygamie te fexe ba instauré fi mu nekk nii monogamie mm-hmm. te dafa am <clears throat> sew-sew bu nekk ci biir mooy CEDEF bi ñu doon wax léegi nii <clears throat> Sénégal signé na ko bu yàgg-yàgg CEDEF mm-hmm. boobu moom dafa rendre obligatoire bépp état boo xam ne signé nga ko mooy obligation la nga soppi sa say loi pour ñu tere waxul waxul encouragé rek mais ñu tere jëmmi polygamie. ah bon CEDEF. waaw ah. ñu tere ko protocole de Maputo sax moom dafa encouragé rek monogamie moom daf ko encouragé nañu fexe ba monogamie mais CEDEF moom daf ko rendre obligatoire. Hmm. te ñaar yëpp nag Sénégal signé ne ko. alors loolu tamit <coughs> bokk na ci. Euh, euh, te ci fàttali yi nga xam ne yàgg nga ko fàttali. dañu wane ne yooyu ñu ratifié signé ko bitim réew moo ëpp doole suñu loi yi ñu tëral. loolu fàttali nga ma sax parce que man maa ngi doon maa ngi doon bëgg a jàll. Hmm. Eh, jërëjëf ci ci fàttali bi gis mm-hmm. nga loolu mm-hmm. dañuy xool article quatre vingt bu constitution bi mm-hmm. dafa am jafe-jafe bu ci nekk bu rëy boo xam ni <clears throat> man suma sañoon Sénégal yi dinañ ko gën a dégg eh, gis ndëgg sërëx bi ci nekk Sénégal dañuy wax ni ñun ñoo moom suñu bopp maanaam réew mu gore lañu waaw muy souverain waaye souveraineté boobu da ngay gis ni bari na lu ci taq suuf ndax xam nga boo gisee article quatre-vingt-dix-huit bu constitution bi dafa wax ni les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont de leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie maanaam Sénégal <clears throat> nii ñu tànn ay député nga xam ne ñoo teewal askan wi ñu jox leen sañ-sañu ñuy wote ay loi hmm, di contrôler gouvernement bi di xayma tamit li ñuy wax euh, évaluer les politiques publiques assemblée boobu loi yooyu muy def ci turu askan bi nga xam ni moom mooy atte askan bi mooy yoonu askan wi dañoo wax ni bu ñu jëlatee ay euh, ay benn délégation rek euh, ministère affaires étrangères ñenn ministère bi loolu concerne nangam daal di dajale fukki nit rek yabal leen ñu jël alali Sénégal tukkee ci alalu Sénégal bu ñu demee oto li ñuy def sénégalais yi fay ko ñoom bu ñu toogee waxtaan ak ay tubaab ba nu am lu ñu xaatim karamat ko rek daal di signé euh, li ñuy wax torlu bu ñu dellusee bu Sénégal euh, jaaralee foofu ba génne ko ci journal officiel loolu dafay tiim luwaay yi nga xam ne moom la askan bi jëlaloon seen bopp. waa léegi kon ana ana moom suñ bopp. bu fekkente ne ñun suñu kàddu ndaw yi nu ko jox. am na possibilité beneen boo xam ne si ñooñu seen kàddu moo tiim suñu kàddu yu ndaw yi. ñooñu ñaan ñooñu mooy mooy mooy gaañi. Mhm. gaañi nga xam ne ci waxin ñoom ñooy ñan ñooy ñan effectivement ñooy ñan c'est ça. kenn joxu leen waaw mandat électif. joxuñu leen seen kàddu voteelu leen te pourtant ñoom gis nga am nañ poroxtondol bi. moo tax disposition bu garaaw ak nii. lii moo waral te disposition bi la la féministe bu ñuy doon ci table foo waxe moom la ñuy akkati yéen a ko ratifié yéen a ratifié wax te lu ñu ratifié dafa war a valable. a moo tax toujours ñoom seen i débat boo seetloo du ñu wax ay problème ñun lii ñuy wax. Hmm. ñoom li ñuy wax mooy nañ ko harmoniser rek. ndax jël nañ fii loo xam ni euh, loi la booba xëy na yeewuwuñu ubbeeku wuñu xamuñu tubaab bi indi nañu xel boo xam ni moo gën a rafet. léegi lii la ñuy moom harmoniser nañ fexe ba loi bi ñu dëppale kook li li bi wax rek harmonisation mm-hmm. toujours ñoom harmonisation la ñuy wax alors loolu kon gis nga ni jafeñ-jafeñ bu rëy rëy rëy bi jàpp nga ne lu ñu war a dindi la ci ah, dafa war a denc ci constitution Sénégal mm-hmm. c'est-à-dire lii du Sénégal lu ko mooy rek bunt la bu ubbeeku boo xam ne nii ma ni la so comme jërul ñu defati benn combat Sénégal xam nga bu ñuy dem délégation di signé dara sax doo ko yëg mm-hmm. kenn du ko yëg duñ ko yëgal sëñ Babacar Sy Mansour mm-hmm. duñ ko yëgal sëñ Mouhamadou Mahi Niass mm-hmm. duñ ko yëgal sëñ Mountakha kenn lañ ko dul yëgal mm-hmm. dañuy dem signé buñ ñëwee sax duñ leen wax ni siñe nañ nangam te loolu mooy ëpp doole liñ fi waxoon fii mais kooku. jaratul ñu am assemblée nationale quoi. mais da ko soxlawul <laughs> lan lañ koy doyee voté ay loi nañ toog ñoom loi bu ñu koy moom kañ nañ toog ñun fu tubaab yi toll rek ñun leen ah fu ngeen toll ban loi bu bees ngeen ngeen fan la seen i xalaat jëm fi mu wax leen ñu lan ngeen bëgg digal leen ñu lii rek la mais soxlatul ñu def ay loi soxlawul assemblée lañ fay sonn lépp di fal ay député soxlaatu ko d'autant plus ko loi bu ñu mën a jël am na loo xam ne bu ñëwee da koy tiim loolu jafe-jafe la nga gis ni. <coughs> léegi lan mooy seen jàkkuteef ci seen yu mujj yi ñu demandé état bi lañ. saako lii wala maanaam xam nga déjà ñi ko def ñan la Union européenne. waaw daanaka mën nga état ok mën nga ni euh, Nations Unies bu ndaw. Mm-hmm. ndax ñoo boole réewi Europe yi doole yëpp. Mm-hmm. muy ñaar fukki réew ak juróom-ñaar fi mu nekk nii ah ñooñe ci boppam ñoom ñoo def euh, ñoom ñoo def euh, rapport bi hmm. bi ñu defee rapport bi nag liñ ciy sàkku dafay leer hmm. mooy ni Sénégal léegi adduna bi dañuy jëflante ci jëflante yoo xam ni dafa am ay loi ak i règlement yoo xam ni international la te loi yooyu international bu dee euh, règlement yi fi nekk ni euh, euh, wala lu ñuy wax le droit international loolu nag dañuy jàpp ñoom ni dafa primé ci lekk te loolu ñoom jël nañ ko jël ay dogal te Sénégal signé na ko wala ratifié na ci yu bari loola ci boppam nag dañoo gis lu safaanoog moom ci doxalinu Sénégal li waral ñuy yëkkati rapport bi mooy il faudrait que mboolem ñi seq Union européenne ñëpp xam ni Sénégal de am na lu muy sooxaale. loo xam ne dëppoowul ak fi jamono tollu dëppoowul ak li ñuy waxante dëppoowul ak li ñuy jëflante ñoo ngi koy jox léeg-léeg seenu stuut def ko fii ñu jàppale ci lii ñu financé la nangam mu ne ñu li ma waxoon tamit danaa ko respecté te gis na ni nee nañu respecté wul loolu moo tax ñoom ñu tëgg rapport bi réewi Europe yooyu yëpp jot ci man koo jàngat seen la commission européenne aussi man cee jot Bruxelles su ko defee ñoom ñu jàngat ko mën a wax ak Sénégal nag ni ko suñuy rapport kat léegi nii la lii illa da ngeen koy def wa illa léegi ñu seetaat yëf hmm. euh, bu ko defee bor yeeg yi nga doon demandé yeneen yi ci suuf ak yooyu yëpp hmm. gars yi ne nañ koy seetaat parce hmm. la engagement yi nga jëloon defoo ko donc rapport boobu loolu lay servir pour jàngatal leen Sénégal jafeñ-jafeñ yoo xam ne am na fi te xam nga ñoom ñoo ko tudde jafeñ-jafeñ ah problème la ci ñoom mais pas. <laughs> la ci ñoom exactement. alors loolu doy waar yu mel ni sañ sëñ Babacar bu ñu ko tëggee ba noppi. am ñu seeni surga yi fi nekk. yo ñu ngi jot xibaar maa ngi leen wax sama ñu may tuddee association fajmer yi <laughs> jot nañuy xibaar yoo xam ne nii ca ñu nekk ci seen biir ñoo nu ko jottali. ka hmm. am na suuf suñu leen jox pour ñu defal campagne. Eh, yenn yi nekk ci biir yi nii donte du ñemee tudd yëpp. mais gars yi tout le temps document yi dañ koy nëbbu li ci document yi dañ ko wax. absolument da ngay toog rek gis association fajmer yi ci télé rajo yi. ñu naan waaw lii war nañ ko xoolaat ndax li constitution bi mi ngi ci te dëppoowul ak nangam eh, day fay nangam jigéen. yow nga ne waaw xëy na ñii dañuy kaasal jigéen ñi di wax mais ndekete dafa am ñu leen yónni yaakamti leen mais débat yooyu am nañu ko su tàmbali su sax ci télé yi effectivement am nañu ko tàmbalee wax ay jigéen mm-hmm. ñàkkul ni dégg leen mm-hmm. euh, xam nga ñoom bu ñu defee rapport ba pare dañuy woo Sénégal état bi day wax ah jafe-jafe bii laa am pour doxal ko wala nangam ak nangam su ko defee ni leen léegi nag kuréel sangam kuréel sangam ONG sangam kuréel association faj mer nangam numéro un numéro deux numéro nangam ñooñu ñëpp ñoom am na lu ñu ci man maanaam li ñu wax plaidoyer su ko defee ñooñu buñ ñëwee ñun leen léegi def leen projet naka ngeen mën a def lii ba sénégalais yi nangu ko léegi bokk na ci débat ñun nangoo poser la débat bokk na ci aussi fexe ba jaare ci surtout GPF yi groupement féminin yi mel ni ku leen di jàppale du point de vue institutionnel jàppale leen ci seeni i euh, cuub ak activités yooyu ñuy mëne di leen former et cetera yooyu bokk na ci yoon la euh, euh, aw aw aw ñal sax lay def mm. mën na caa bàyyi koo xam da nga am accès ci ñoom pour yenn xalaat yi nga def ko ci ñoom ndax yaa ngi mel ni ku leen di dimbali alors loolu ñoom bokk na ci fi nga xam ne sii fi mu nekk nii ci lañu ci la ñu jublu mm. financement yi ngay junj nii yooyu moo koy waral mm. ndax Union européenne moom gis na blocage loo xam ne moom jàpp nañu problème la dañ ko war a donc dana ci def alal yeneen partenaires yi aussi dañ ci def alal américains yi ak canadiens yi ñoom ñëpp danañ ci def alal ni Sénégal jug ci lii ndax yéen da ngeen a tardé da ngeen a ndax bu ñu waxee ngeen naan yàlla nee na kuy yàlla bàyyi leen seen wax yi nga xam ne boobu ba léegi yéen koy répété di répété di répété rek léegi àdduna dafa am fu mu toll am lu ñuy wax les droits humains te man kiy wax droits humains man xaw ma xamaguma ba tey kan la mm-hmm. ki koy wax kan la <laughs> mm-hmm. boo waxee rek ñun la droits humains ki koy wax kan la parce que bu ñu ko xamee ci la ñuy comprendre moom nit ki muy wax kan la mm-hmm. waaye ñu naan ñu rek ko wax rek ñu naan la way droit de l'homme les droits humains droits humains di ko chanter di ko chanter ba ñoom ñëpp fi mu ne boo nee ñu ne droits humains mm-hmm. loolu kon di loo xam ne nañ ko séntu fi mu ne nii ci réew mi dana gën a takkat ñu bari ci sénégalais ni ñu mel ne man daal xel mais bien sûr non yooyu moom du fi mos a am dañuy sonn rek te léegi li nga naan dañuy sonn du fi mos a am ci loi ñoom fi ñuy daal fi ñuy dóor xam nañ ne baax na mooy loi absolument bés bu ñu ko demee ba nga xam ne réussir nañ ko ba luwaay ñu dindi lañ bëgg voté nangam yàgg yàgg dañuy xëy appliqué ko moo xam génération bi wala bii ñëw. soo waxee ni ñu gëmloo nit ñi loi léegi la wax ñu ne non constitution bi moom moo ko tëral. c'est ça xam nañ lan moo tax. c'est ça ñuy def ñoom xam nañ ko. moo tax du ñu dellu ginnaaw ci loolu boo xoolee toujours sax seen stratégie euh, foofu la ñu gën di insister mooy nañ fexe ba yoonal ko d'abord ba pare bu ñu mënta am loi bi fii au niveau national nañ fexe ba Sénégal engagé wu ci ay traité wax yi convention sur le loolu suñ ko defee ba pare leen li des dañ koy accompagner ak li ma la junj léegi nii maanaam waaye boo xam dafa am ñoo xam ni euh, nekk nañ fi euh, yor seen i kii di di di laara bi daal euh, seen i ñu mën leen a jox ñu ñu ñu ñu yalwaan mm-hmm. donc ñoom it ñu jox leen tuuf leen ca loolu ñu leen nag def leen lii def leen lii te kat da ngeen gaaw ndax dañ leen a da ngeen kii liñ daan wolof yi wax mhm. sama am yoon la ni la yeexal mhm. maanaam dama la yónni waaye yàkkamti naa la su ko defee ñoom taxaw ci loolu mhm. waaye duñu yem ci loolu dañuy fexe ba de manière subtile aussi euh, ci wàllu média yi aussi dañ ci def alal yu baree bari pour que débat yu mel noonu ñu man di ko instaurer directement wala indirectement série yi ñu financé yi aussi ñu financé ci yu baree bari gone yi tàmm di leen ko tàmmal yooyu nest di wane aussi ab safaan ci nit ki su amee ñaari soxna ñaari yu demee noonu alors ba nga xam ne nit ñi dañ leen di occulter li ñuy dund dañ koy muuti seen i bët wan leen leneen loo xam ne si en fait fiction la xam nga yooyu fiction la mm-hmm. mais li ngay dund di ko gis nii nekk ci njaboot goo xam ne gis nga par exemple sa waajuru góor yor na ñetti soxna ñeenti soxna ngeen dund dundin woo xam ni mm-hmm. say doomu bàyyi nga demee ñoom ñoo xam ne daanaka mm-hmm. léeg-léeg sax doo ko demee ñi nga bokkal eh, ndey léegi yow loolu loo dund la mais dañ naan la déedéet lii du dëgg lii dëgg mooy kaay ñu wan la ko ci télé bi su ko defee xam-xam ñu dem jëli ko foofu waaye du ñu am loolu dañuy fexe it ba sëxal ko ci biir éducation bi ndax tey jii <clears throat> am na loo xam ni euh, génération bi nii xëy na man li may tiit tiit am na loo xam tiitalu ma leen ko ndax am na loo xam ne ku ko fi bëgg a wax dinaan la duñ la may sax nga yeggale ko mm-hmm. waaye suñuy doom nag suñuy doom mm-hmm. seeni doom mm-hmm. fi mu ne problème bi enjeu yi loolu la te boo xoolee <clears throat> boo xoolee euh, seen jubluwaay gis nga oustaz dafa war a leer ci sénégalais yi ñu xam ñii fan nañ bëgg a jëm ñun fi ne ñoo ngi ci guuta de est-ce que tàbbiwuñ ci hmm. gis nga protocole de Maputo bi ma doon wax article deux bi mu hmm. ngi nii ma encadré nii hmm. dafa wax wax ju leer moom dafa wax ni ñi signé euh, protocole bi les états sangage maanaam taxaw nañu dogu nañu laxasu nañu à modifier modifier mooy soppi soppal ñi Les schémas et modèles de comportement socioculturel de la femme et de l'homme par l'éducation du public, par le biais des stratégies d'information, d'éducation et de communication, en vue de parvenir à l'élimination de toutes les pratiques, toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes, et de toute autre pratique fondée sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou sur les rôles stéréotypé de la femme et de l'homme hmm. ñu ni état yi nga xam ni nangu nañ lii torlu nañ ko signé nañ ko protocole de Maputo bi article deux bi ah. hmm. dañu wax ni ñoom ñooñu soobu nañu taxaw nañu dogu nañ engagé wu nañu ci soppi tëraliinu ak euh, modèle mooy loo xam ne ci ngay xool di ci tegtalu li sénégalais yi doon xool ba mën a am njaboot di ci tegtalu kii ndijaay la kii bàjjan la kii mooy maam kii mag la kii rakk la kii doomu ndijaay la kii sa doomu bàjjan la nangam modèle boobu ñu ni loolu ci boppam nañ ko soppat ak après model bi sax schéma bi ci boppam maanaam jëmmi ni ñu koy dundee it loolu nañ ko soppi xam nga sëñ bi lii lu garaaw la mm. à modifier les schémas et modèles la wax mm. de comportement ci nit ñi seeni taxawaay ak seen dund ak seen dundin te loolu ñu jëlee ko ci seen a seen seen seen seen aada rek socioculturel seen cosaan muy jigéen ak góor te noonu nan lañ koy soppee ñu jaar ci nee na ci jàngale ak yar gis nga mooy bi ma doon wax jàngale ak yar mais nit ñi mbooloon loolu télévision média information yooyu moo koy gën di def par le biais des stratégies gis nga ci fan lañ koy jaare mu ni ci ay pexe yoo xam ni ci wàllu information éducation ak communication mm-hmm. xam nga protocole bi wax leer na de. Mm-hmm. waaye daaneelagul oustaz. Mm-hmm. mu ne lan loolu ñuy def noon lan lañ ci jublu en vue de parvenir a quoi pour àgg ci lan. pour am lan. ngir am mbooleem élimination maanaam ñett ñii kat dañ doon jongante. kee éliminé ko mooy bokkatul. maanaam dañoo ki doon éliminé mooy bokkatoo. léegi daa am loo xam ne waratu la bokk ci dundinu Sénégalais ak seen modèle ak seen dundin en par de parvenir à l'élimination de toutes les pratiques loolu mooy lan ay jëf yoo xam ne mi ngi jugee ci seen euh, ni ñuy dunde nga xam ni dafa jóge ci seen diine ndax culturel la wax te te muy ay jëf yu bon maanaam nga dégg ci ni kon ñoom jàpp nañ ni diine dafa dégle yu bon ak ci seen aada et traditionnel aussi ak ci seen aadam muy jëf yu bon mhm. ñu ne yooyu lépp dañ ko war a déjjati ba dootu fa am ëkk ak lan jeneen jëf ju mën a doon te ñu teg ko ci ay xalaati rek kii daal moom la moo jiitu wala kii la yàlla jiital kii la yàlla teg ci ginnaaw yooyu mhm. nee yooyu tamit nañ ko déjji lii c'est écrit noir sur blanc ci protocole de Maputo mhm. te Sénégal signé na ko waaye léegi ndax leerul kon ni ñoom fi nu jëm leer na hmm? mbokk yi hmm. nañu xam ni ñoom dañ ñu déclarer guerre hmm. gis nga bi fii sallallahu alayhi wa sallam nekkee booba xeex yi xëñ na mi ngi toll woon ci jël jaas yi hmm. ñu jàmmaarloo def kooraakoor kun ci ku ci kun ci rey nga shahid ku ci rayee tamit def nga ndigalal yàlla amee ci yoon bu rey xooñ na foofu xeex yi foofu la toll woon waaye tey fi ne xeex yooyu champ champ champ de bataille bi dañ koo déplacé mm. defatuñ ko ci ay bojjante mm. bëgguñoo éliminer jëmmi nit ki mm. maanaam jëmmi nit ki la ci biiram lañ bëgg a yàq ba pare ba fi mu ne mu teg xottu kese nga xam ne nit ki mi ngi dund nii mais rey nañ ko terewul lu mu bëgg ci àdduna nag mën na ko am waaye moom existeetul en tant que nit kuy am yëg-yëg xam ni am na borom. amatul xalaat bu ko war a jëmale fenn. exactement lépp dañ koy xalaatal. dañ koy xontu te xalaat yooyu nag fa mu koy jëmee wala hiyaasu billahi lu dagg diggam ak boromam. ba noppi nag xont bi ñu gungee ko. kon loolu il faudrait que nit ñi comprendre ko sa xalaat. waaw ko doxal. waaw léegi nag mën nañ lay xont. exactement. léegi day dem ba mu yàgg léegi dafa mel ne ñun xont rek a ñu yitteel euh, euh, mooy nañ ñu financé ñu lekk tabax yi euh, dëkkuwaay defari tali làmp yi tàkk te yafal mais nañ ñu bàyyi ñun seen xalaat nañ leen ko jox nañ leen ko jox ñoom ñu nu koy xalaatal. te yafal ñu. te yafal <laughs> musiba la. fii de lañ lañ toll. doy na waar. kon nag oustaz gis nga loolu lu lu lu doy waar la. loo xam ne il faudrait que mm-hmm. sénégalais yi comprendre. ok combat bi ànd sàmm ji koy yëkkati. Mm-hmm. Euh, day combat boo xam ne combat bu difficile la. Mm-hmm. ndax ñii duñu dellu ginnaaw. Euh, duñu bàyyi itam. te loolu it bettuñu. ndax amoon nañu information bu yàgg ci alxuraan. dellu ginnaaw duñu ko def te waxtu wu ci nekk ñoo ngi xeel nan la ñuy fexe ba màbb li nga xam ni mooy li gën a rëy ci ñun mm-hmm. duñu jekki-jekki nii rek ñëw nag ni la déedéet sa jàkk ji jëlee ko fi déedéet waaye yaakaar naa ni lii ñu tàmbalee wax ni rek mm-hmm. baaxawuñ ko woon xam mm-hmm. ci seeni bind dañ daan bind ay bindin yoo xam ne yaay toog naan waaw lii waxin wii lan moo tax di ci analyser mais léegi bind mu leer la ñuy wax bu nee nit ki seeni schéma ak modèle maanaam Sénégal mi nga xam ne signé na ko doon yare daan ne ah, man sama doom bu noppee xaaral ma yóbbul ko oustaz Maxtaar man kat bëgg naa bu noppee mu tàmbalee fii euh, laxder yu maanaam nangam ak nangam ak nangam jàng téere sangam téere sangam bëgg naa yi tamit bu amee xam-xam ba noppi mu yóbbu ko ci diw sangam mu defal ma ci moom ab yar yooyu ci boppam dafa war a deñ. dèjà am na ñu tàmbali suñu débat jël sa doom di ko dénkaane dafa war a xewi. exactement baatu dénkaane gi jubluwaal nañ ci di ko yóbbu ca daara ja muy jàng e-, nekk yaa war a sa doom euh, loolu nag bu mu la bett fi ne la leen wax loo mm-hmm. euh, xont bi la rek mm-hmm. bari na ci ñoo xam ne si man damaa jàpp ni li ñuy wax sax ndeysaan euh, xëñ na ku wetoon nag ñoom sax mën nañoo bañ a wax lool mm-hmm. waaye mënuñu ko bañ a wax ndax dañ leen yónni yàkkamti leen c'est important nit ñi tamit di xam léegi kuñ gis muy wax yenn yi yàkkamti leen ñu bañ a mu bañ leen a bett xam ne yéene ci suuf exactement moo tax yu mel nii di ko génnee di ko liiral Sénégal mais absolument ñu ko teel xam nga xam ne nii buñ gisee kenn di wax du leen bett loolu dafay am solo dana tax ñu ràññee nag gaa ñu baree baree baree mais bari na ci ñoo xam ne gis nga oustaz mm-hmm. mënuñoo bañ a wax li ñuy wax mënuñu ko sax faaw ñu wax ko donc foofu la réew mi toll d'accord xam naa ñu ñëw ci beneen wàll gi li des si waxtu bi taxu koo bari. Mhm. mooy ànd sàmm jikko yi woote nañ la le 23 mai. Mhm. Euh, doon sàkku ñu criminaliser ak ngóor jigéen mu mel ne luwaa bi boobu ba léegi yéen ngi ci woon. Mhm. Euh, fan lañ ci toll ak yan jéegoo lañ jëm ci kanam. Euh, jërëjëf oustaz <coughs> nga may ma ñu gërëm kilifa yi suñu kilifa kilifa diine yi tàmbalee ko ci xalifa généraux yi. ci seenu jàpp seen jàppale seenu taxawu seen orientation. waxtu wu ci nekk. ñoo ngi ñuy teete. te bàyyiwuñu benn waxtu. Hmm. Euh, de la même manière it ñoo ngi ndokkeel ak gërëm mboolem association islamique yëpp. Hmm. ak suñu partenaire yëpp nag. Hmm. Euh, ànd sama jikko yi. li may wax it euh, kenn gën laa placé ci nga nga nga wax ko. donc ñooñ ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant gis nañ taxawaay bi bu ñu ñemee ba agsi fii yàlla ñoom la ak askanu Sénégal. ba tax na ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi gërëm nag particulièrement le peuple sénégalais aussi ci seen taxawaay euh, xam nga am na juróom-benn jéego yoo xam ni dox nañ ko tey jii nekk ci phase ultime bi fi mu nekk nii li jiitu woon tënk bu gaaw lay doon mooy bi ñu gisee ni am na lu ñu fi duut duutal lan ni lii kat buñ ci noppee amaana dana am ñu ami daan de waaye ñun ñoo ci ëppale ñu ne kon am sàmm ji koy li ñu war mooy nan jóg partager lii ñu am ak askan bi ñu ko defee fu ñu fi demit yóbbul na leen ay firnde wër Sénégal yëpp ànd ak ñoom mu ànd sàmm ji koy seeti askan yu fekk leen ci seeni gox bi ñu waxtaan ak ñoom ba nit ñi comprendre ñun leen nag léegi kon lii li ciy saafarakat mooy ñu fexe ba sàkku mu génn fi te niñ ko mëne ñun ñëpp mën ñoo ñëwandoo di wax nañ ko def ci pétition sénégalais yi signé pétition te pétition boobu li ci mat a préciser mooy mbooleem xalif généraux yëpp yëpp yëpp ko si ñoom ñëpp sans réserve ñoom ñëpp ko biñ ko signé ba noppi nag ci lan ni kot li ci war a topp mooy nañ woo sénégalais yi ci mobilisation ba ñu gis ni ñun kat ni ñu doon dem di wax ak ñoom ak a ñoom ak laayante biir ci mbir yi ñoom ban taxawaay lañ ci am donte signé nañ ba pare ci kayit la waaye ñu gis nag ci image nit ñu taxaw moo doon journée de mobilisation bi et pour la première fois euh, Cheikh Makhtar ñu gis ci Sénégal question bi ñu fi soulevé sénégalais yëpp taxawoondoo ci c'est la première fois ma gis mbir mu ñu fi soulevé 45 départements yëpp organisé ko daanaa gis mbir xew xëñ na capital yu mag yeeg yooyu deme noonu taxaw ci waaye c'est la première fois man ci li ma xam ci senegal ñaareel bi ñu def mobilisation boo xam ni Europe gépp tiit Occident ñoom ñëpp tiit ñoom ñëpp nii non non non Sénégal fan la jëm nangam ba fi mu ne liñ ñuy xase mooy Sénégal ñaari réew yi gën a bañ góor jigéen ci àdduna bi Sénégal ak Afghanistan <laughs> ma leen xasu leen ñu da ñoo tàgg. la loolu wax dëgg yàlla ñoo ngi ciy ndokkeel askanu Sénégal biñ jógee ci loolu mobilisation bi nag ñu xam ne kon fi ne nag yëf yi li des mooy ñun li ñu bëggoon borom bi yombal nañu ko askan wi war nañ ñu taxaw nañu kilifa yi jàppale nañu euh, mbooloo mi pare nañ pour taxaw léegi nag kon nañ topp ci li ci topp mooy ñu ñu bind luwaa bi bii bind luwaa bi waxtaan nañ ak borom borom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci lool ba ñu tëgg ko ñu wax leen suñuy xalaat ñu tëggal ñu ko nosal ñu ko xalaatal ñu ci ni lii moom mooy ni ci ni ci gën loolu bi ñu ko defee ba noppi ñu pare ci euh, spécialiste yooyu dañoo wëlbatikuwaat dellu ci kilifa yi que ci nekk ñu jox la kii bi ni la kat lii daal la ñu proposé. kilifa yi signé woon pour ñu. kilifa yi signé woon. da ngeen delluwaat ak ñoom ak loi bi ko ci wan leen ko. Mm. ndax xam bu ñu jékki-jékkoon yóbbu ko delluwuñ ci ñoom. Mm. danañ ñu ne waaw dañ ne woon buñ ko teree mm. waaye niñ koy teree moom waxtaanuñ ci woon. te boobaa dañ ñu yey. te it dafa dul doon sax orma ci koo xam ni njaboot nga am sa kilifa kon loolu budul dara war nga dellu ci moom ni ko kat lii laa xalaat bi leen ko yóbbulee ñoom ñëpp laaj liñ seen xalaat ni leen su ngeen ci gisee loo xam ni jàpp ngeen di noonu wax leen na ko su ngeen jàngee ba noppi yi tamit gis ni am na lu ci waroon a dugg te defuñu ko ci it ngeen wax na ko bi ñu dajalee yooyu yépp ñu dugalaat ko ci document bi <coughs> léegi nag li ci des hmm. mooy ñu wëlbati ko wax ak député yi nga xam ne ñoo ko war a yóbbu hmm. ñu contacté député yu baree bari hmm. jotaay ak ñoom waxtaan ak ñoom individuellement d'abord ba pare après tajeeg ñoom di waxtaan ak ñoom ngir ñoom seen expérience ak ginnaaw ñoo ko yóbbu it ñoom it ñu jàngat ko waxee ci seen xalaat muy démarche bu inclusive boo xam ne génnewuñ ci kenn bi loolu amee ba pare nag ba nga xam ne fi mu ne am mu mouture finale bi xalaat yooyu yëpp dajale nañ ko lenn rek moo ci des fi ne mooy teg ko ci bureau président assemblée nationale mm-hmm. parce que proposition de loi la waaye nag loolu suñ koy defit faw euh, gunge ko waaye faaw it ñu informer askan wi ndax bu ñu fàtte ni lii ñuy def it askan wi lañ koy defal ndax lu askanu Sénégal ñoo bañ ak ngóor jigéen loolu lu ci am solo la mm. lii du mbirum ànd sàmm jikko yi daf ko mm. dépassé mm. askanu Sénégal la te ginnaaw askan wi ñoo ko moom ñoom lañ koy defal te loi bi bu jógee ci seen kaw lañ koy atte it dana yell ñun bala ñu koo dugal it ñu toog conférence de presse askan wi xam ne nekk ci yëfi loolu la te ñun jàpp nañ ne ñàkkul ñoo xam ni bariwul ñi déggul baat bi may bëgg a wax mm-hmm. waaye ku ci waxoon dem ci yoon léegi buñ la waxee dañ naan la nul n'est censé ignorer la loi mm-hmm. kenn waruta euh, waruta mën a euh, ñàkk réere réere loi mm-hmm. ah day fekk ngay combat nga xam ko donc loolu moo tax démarche bi ñu def ko moo tax kon incha allah rabi le onze bu soobee dana ñu def conférence de presse boo xam ne décembre bi euh, ca mosquée Ina Chevre à partir de dix heures ngi ci woo toute la presse nationale ak internationale ndax Sénégal moom taxawaay bi am ci loolu xam euh, leer na processus bi ñu jëloo it fi mu ne ñoo ngi ci ultime phase bi mm-hmm. suñu noppee ci loolu rek danañ wax ni bi sangam danañ dañ déposé ji ko. bu ngeen noppee ci conférence conférence de presse bi. Mm-hmm. ànd nag ak député yi nga xam ne ñoom ñoo koy porté ndax mbooloo lañu. Mm-hmm. am na député yu pare pour porter. mbooloo lañu. Ah, mbooloo mbooloo lañu. moo xam ne ñoom pare nañu fi mu nekk nii pour porter loi bi. d'ailleurs looloo tax sax ñu xalaatit ni. mboolem suñu bànqaas yi nga xam ne ñoo ngi ci biir réew mi mhm. ñoom ñëpp faw ñu ñëw fii fekke si loolu mhm. ñu jox leen loi bi waxtaan ceeg ñoom mhm. ku ci ne boo demee sa gox wax ak député ya gis nga Cheikh Matar bu ñu fàtte ni li ñuy tuddee république euh, benn souverain la am benn kilifa mooy askan wi askan woowu nag moo tànn ay député ay ndaw lañu maanaam boo yoroon tey sa booy boo xam ne da nga koy yónni mu toog ci kër gi boo soxlaa ni ko demal jëndal ma fii nangam demal jëndal ma demal doxal ma métier sa euh, euh, service sàngam loolu moom mooy député ak askan bi ñoom suñuy ndaw lañ suñ ndaw yooyu nag bu fekkente ni say kilifa gi la embauché nee na bëgg naa nangam man yaakaar naa ni kon baat ak tontu la moo tax ñu bëgg it impliqué ci ñëpp ba ku ci nekk xam ni taxawaay bii am na role boo ci joué suba fu mu mën a mujj ak lu mu mën a doon it kuy Sénégalais sañ ngaa taxaw sant yàlla ni lii am naa ci taxawaay maanaam da ngeen bëgg mboolem fu seen représentant nekk ci Sénégal. ngeen woo leen jox leen. Euh, loi bi ñu wax ak seen i député ñu wax ak seen i député ya nekk ca gox booba. te nekk assemblée. Hmm. nga xam ne bu boobaa tey bu ñu jëlee par exemple lu mel ni Médina Yoro Foulah hmm. la. député yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ca département ba. Hmm. waa Médina Yoro Foulah la ñoo naan leen loi bii ñun waa Médina Yoro Foulah la it euh, signé nañ ko dañoo bëgg bu accès assemblée ngeen ngeen. te it leneen da ci ko xam nga ñoom fi mu ne dañ ñoo soxla. am na benn député benn politicien boo daan dégg nag ni sénégalais yi moom ginaar lañu rek da fexe ba yor dugub rek suy suy suy suy waaye yaakaar naa ni romb nañu mm-hmm. euh, jamono yooyu léegi mm-hmm. ñoom dañ soxla mm-hmm. ñu nekk ci phase euh, pré électorale ñu ngi jub dëgmal ay ay ay ay élection waaye ñu ne dañ leen a soxla te ñu ñëwee seen kilifa askan wi léegi nag moo tax ñu bëgg teg ko ci seen loxo bala ñoo dem ci élection yooyu ngir askan wi seet ba xam ñoom ñoom rek li ñu bëgg ci ñun mooy seen yitte wala boog askan wi seen yitte ñoom yitte woo nañ ko déet loolu danañ mën a permettre kenn ku ñu apprécier ni sa bopp rawatina <coughs> euh, su dul woon ni mu tëdd nii sax waaye mënoon naa ba añu agsi fii Cheikh Makhtar mm-hmm. ndax proposition de loi boo xam ne wala loi boo xam ni nee nañ sëñ Muntaxa bëgg na ko mm-hmm. ba signé na ko ñu wan la kayit wi mu bind moom nangam nangam bind aw turam def signature def numéro téléphone. Mm. boo xam ne bu sikki sàkka wooteel numéro téléphone bi jot ko. ba pare accompagner ko ak texte. ba ko ak texte. xam nga man fàtte woon loolu sax. Mm-hmm. sëñ Babacar Sy Mansour. Mm-hmm. non seulement waxuma dafa signé. Mm-hmm. def ci numéro téléphone boo xam ne boo ci wootee jot. waaye da ko accompagner ak texte. boo xam ne wane na ancrage am ci moom loolu. li ko fi bàyyi nekkal fi yàlla ko yonentam dong la kon lu yàlla bañ yonente bi bañ ko moom loolu ku koy bañ moom ko ko bañ laataa ñuy xalaat loi bi moom euh, ca njëlbeen la sax wax na ci ministre nag sax à maintes reprises yaa ngi fàttaliku gan ma daawaati jéeg mhm. publiquement ci cérémonie bi la leen mhm. wax na ci waxate ci waxate ma yaakaar ni kon bu fekkoonte ci réew mu normal lañ nekk mhm. réew moo xam ni wax dëgg yàlla jox nañ cër ñi ñu war a jox cër ñëpp maanaam su ma ko waxee nag jëmmi askan wi euh, jiitu ci li ma bëgg a wax nii ndax askan wi ñooy ñoo ñoo moom baat bi ñoom la constitution bi wax te askan woowu it am nañ ay kilifa kon ku leen jox cër kilifa yi nga ko jox ku jox cër kilifa yi tamit askan wi nga ko jox loolu nag ma jàpp ni su fekkoonte ni ñoom bàyyi nañ xel loolu ba ñu déggee ñu ne ba ñu déggee laa waxe ni ah sëñ Babacar Sy Mansour signé na pétition bi mm-hmm. Cheikh Albekaay Albekaay signé na ko mm-hmm. xalifa njigéen sëñ Muniru signé na ko mm. sëñ Ahmed Tidiane ñas euh, signé na ko mm. euh, sëñ Mouhamadul Ma signé na ko sëñ sëñ Abdourahim Seck mm. na ko yàlla na borom bi dool di ko yërmande signé na ko euh, sëñ Muntaxa signé na ko nangam nangam kilifa yooyu gis nga bañ déggee ñu ni kenn ñaar signé na ko ci ñoom rek man yaakaar naa ni ci la président assemblée waroon a woo ay député ni leen kat ñun ñii askan wi lañ fi nekkal assemblée nationale la tudd ngombalaan gi askan wee ko moom ñun ñooy seen yi ndaw maanaam seen yi serviteurs yoo xam ne ñoo leen fi nekkal pour liggéeyal leen te gis nañ yitte ju ñor ju leen yitteel ba kilifa yi ci gën a tedd ci ñoom àddu nañ ci ba bind ci kon nañ daal di gaaw ñun def procédure bala ñoo yeggal li ñu def ñu wan leen ni leen ñun yéen lañ fi nekkal lool doon na rafet lool bu amoon te it Sénégal yi dana am ñu ko interprété ma jàppit ni ki jiite réew mi loolu moom moo ci waroon a jiitu sax ba mu déggee nii ñaari xalifa signé nañ ko rek la waroon a def procédure d'urgence loolu moom moo ko moo ko gënoon a yeyoo daal di fissaase def projet de loi def procédure d'urgence léegi nga xam ne dañuy accélérer yëf yi bala ñuy pare ñun ci ñuy wax sax ñu daal ni yéen du loi bi ngeen di wax ñun yéen lañ fi nekkal lu kilifa yi bëgg-bëgg nañ ko man loolu laa jàppoon Cheikh Makhtar xaw ma nag lu ñeneen jàpp waaye man lii laa jàppoon ni mooy li normal. li nga jàpp la ñi bëgg lu baax ñu jàpp. Hmm? <laughs> Hmm. waaye malheureusement <clears throat> xam nga ni euh, ñoom jàpp nañ sax ni lu jar ñu def ko sax amul. nekk fi lu ko jar. Mm-hmm. xam nga loolu it lu doy waar la. Mm-hmm. ndax ndaw wala damaa xamatul ndaw dañoo man maa xamul lan lay firi wala lu muy màndargaal. Mm-hmm. waaye ndaw koo xam ni yow danga nekk ci service su kilifa. kilifa ga di askan wi. mu ne nangam ji laa bëgg ngaan ko gisuma fi lu jar ñu def ko. <laughs> nga bind sa mbindaan ci kër gi. xëy ni ko. <clears throat> damaa bëgg nga toogal toggal ma ab ceebu jën hmm. mun ma la gisuma lu dara fii toog ceebu jën hmm. ah man de tey wax dëgg yaasa laa bëgg añee mun la fi moom yaasa tey kenn du ko fi añee hmm. loolu jafe am na te mooy jànq bi nga bind mooy jànq bi nga bind yaa koy fay te it yaa ko ubbil sa buntu ndax jékki-jékkiwu rek donte bëggoon naa liggéey ak si taxaw daal ni e maa lay liggéey loolu foofu ndax kenn ku fi jekki jékki dem taxaw pale ni léegi e Sénégalais may seen président man gisaguma ko askan wi ñoo la koy jox. ba léeg-léeg sax nga gis ko doon président ba yàgg appam di jeex mu del siwaat ni joxaat mayaat leen ma kàddu. Mm-hmm. kon que ñi mi ñaan kàddu gi. ñoo yor baatu askan wi <laughs> waaw dagaan baatu askan wi. Mm-hmm. ñooñu ñoo kàddu gi. loolu nag man wax dëgg yàlla euh, jàpp naa ne ci laaya biir. Mm-hmm. ñoom homme politique yi nañuy bàyyi xel loolu. d'accord askanu Sénégal. seen yitte rek moo war a doon seen yitte. te lépp lu ñuy defat yi tamit. nañ ci sóor askan wi te di leen ci jiital. Mm-hmm. dafay dafay lu am solo. Mm-hmm. lii nag demande social la. Mm-hmm. maanaam du lu ñuy négocier du lu ñuy transiger demande sociale la ndax ñaari enjeu de cee nekk ñaari jëf benn bi mooy dafay lu yàlla bañ yonent bi bañ ko te it askanu senegal bëgguñu ko waxuma sax problème mu diine mais askan wi bëggul mbir mi askanu senegal loolu benn benn mbir la ci mais beneen bi ci des dafa am leneen lu ci dolliku ñun ñëpp xam nañu Sénégal réew mi. mais li tax mu am stabilité bi mu am ni hmm. mais du dara bu ñu yaakaar ni diine tax mu am ko diine maanaam diine kese li ma bëgg wax mooy bu doon diine kese la kon Mali am ko comme kon Côte d'Ivoire am ko hmm. kon Égypte am ko hmm. ndax ñoo ñëpp ay ay réew yu jullit lañ euh, foofu laa waxee waaye du caggee ni diine diine rek rek rek la déedéet ñun dañoo am euh, ay mag ñoo xam ni yàlla da leen a dimbali lool ci am xel ñu nosee réew mi noseen woo xam ni pour nit taal ko lu jafe la ñooñu ñooy suñu kilifa mm-hmm. gis nga kilifa yooyu nag bis bu ñu demee ba mu mënatuñu adossé adossé wu ci ñoom maanaam kilifteef googu effrité wu ñu ñàkk ko mm-hmm. réew mi dana takk ni tàkk réew yëpp di tàkk te enjeu bi nag dafa nekk ci loi bi d'accord ndax suñu kilifa tey bu nee ñoo bëgg dara mm-hmm. yemuñu ci waxte ñu xam nga am bind gën a garaw ñu bind ko ñoom ñun ñu ni dañ koy sobantal wala dañ koy naan loolu mooy dañ leen ni seen kilifa yi ñun faaliwuñ leen amuñu benn poids waxuma seen wax waaye seen bind duñ ko faale dañ koy eh, sax moom sañ Babacar sénégalais yi duñ ko seetaan moo tax man moom moom moom loi bi moom eh, dañ ñi dañ koy jàllale wala ñu jëlee leen fi ñeneen ko rek loolu eh, exactement moo mooy moo tax nag man ñoom ma yaakaar ne bu ñu xeloo mm-hmm. nañ gaawtu mm-hmm. ñoom gis nga bu xel woon mm-hmm. buñ xaar sax ñu ñu koy indi nañ gaaw daal di tëgg loi bi xam ni dañuy bañ dañ koy criminaliser ñoom ñu dugal ko criminaliser te ñu xam ne ñoom yenn ñu ratifié ci biti ba ñuy dem yónni wuñ leen ñun lii lañ leen yónni. jërëjëf. ba ñuy ratifié ñu doon ratifié ci biti waatal loolu. ba ñuy dem yónni wuñ leen ñun bii lañ leen. bii lañ leen yónni mooy suñu yónnent. te ñooy kilifa yi. waaw jël jànq ma ñëwaat ci beneen misaal ki nga doon wax léegi ni ko toggaloo muy bañ. Ah. mënoo jël jànq ci biir kër gi muy dox yónnent waa koñ bi bàyyi sa bi yónnent. xam nga dëgg de. jël jànq ci biir kër gi di ko fay weer wu dee muy dox yónnent waa koñ bi yow bàyyi sa yónnent yow yaa ko jël. yaa jël yaa koy fay. ba noppi yónneentu waa koñ bi la dox. léegi yow bay woo ko yónnee ko yow boo ko yónnee mu ne la xaaral wala mu bañ li am moom mooy day dem ci waa koñ bi rek te bàyyi sa kër. dëgg waaye mënoo continuer di ko fay weer wu dee du dégg sa loolu moom yaakaar naa askanu Sénégal yéen ñëpp dégg ngeen ko. wax ju leer la wax ju leer la te député yi mooy président de la République. bien sûr loi bi moom président Macky saal moom moom sax xëy na moom jeexal na 2024 yal na yàlla defal ko ginnaaw gu sedd guy. waaye nag na xam ne xëy na soxlawaat na assemblée bi même bu jeexalee moo ci euh, gaayam euh, loi bi moom ah ci. ci neexalaat toog la bokk man de man de yéene woon naa loolu mu def ci dara. waaw noonu ndax dana rafetal lool wala mu jooyante lu bari loo xam ne nit ñi jàppaloon ko sax dana ko effacer. tànk moom du tëye tàlleeku tëye banque rek te paaka na fi su ko defee xam naa euh, waxtu wi mi ngi mel ne nii jeex na. Euh, di fàttaliwaat rek mbokk yi muy la. 11 euh, euh, décembre fële ca mosquée inachevée mosquée inachevée moo moo tolloog aéroport ancien aéroport bi. bu yoof kuy ñëw ci aéroport bi rek jumaa ji nga xam ne moo nekk noonu sa ndeyjoor foofu mooy jumaa ji 10 heures bu jotee fa lañ koy defee di ci woo presse bi yëpp national international bu ko kenn wuute. waaye tamit sénégalais ñi nga xam ne jege nañ te am euh, genn jot gi euh, ñu ñëw teewee sa ko te defe naa ñëpp nañ am jotam. Hmm. Euh, ngir rek ñu xam lan la ànd sàmm jikko yi dëxëñ ci projet de loi bi laataa ñu koy déposé ndax bu ñu jógee ko ci conférence de presse bi rek incha allah li ciy topp mooy dem assemblée nationale député yi jël loi bi déposé ko incha allah. Hmm. di jaajëfal nag député yi nga xam ne ni yëpp adhéré gum nañu pour pare pour porter combat bi. Hmm. di ci woo ñeneen ñi nga xam ne ni ñoom ñoo des mbir yi nekkul mbirum opposant ak mbirum pouvoir. mais mbirum mbirum Sénégal la il faut ñu bàyyi ko xel. Hmm. te it ñu génnee ci xalaat yi euh, bitim réew dañoo am doole tubaab yi amuñu benn doole. annal quwwata lillahi jami'an doole kenn dong nga ko yor mooy yàlla. yàlla mi nga xam ne mooy jëfandiku ci nit bañ jàpp ko futti ko sang ko sang ko takk ko yóbbu ko dugal ko ci biir suuf suul ko wane ginnaaw kookoy borom doole te kookoo mat a bàyyi xel hmm. su ko defee am na yoo xam ne nii ci réew mi nañ ci jéem a su suñu empreinte rawatina député yi hmm. am na loo xam ne nii ndam la rek nga ne loi bii nga xam ne nii kat moo doon bañ ak ngóor jigéen loi bi man voté woon naa pour Euh, ñu taxawal ko loolu noonu la wuy la wu wudul fay ba ci boo fi bàyyee ko loolu il faut ñu bàyyi ko xel hmm. waaye amul dara lu ñu war a séenu ba war a tax ñu nekk di ragal naan li yëg mais loi bi dafa war a jàll li ma hmm. waxoon léegi da tànk du të tàlleeku nag ba nga ko te paaka hmm. euh, wi ñoo moom seen kàddu absolument ñoo moom suñu réew faluñu ay euh, union européen faluñu ba ñu doon tëgg tëgg ay nu mu tuddati ba Maputo xaw ma. protocole de Maputo protocole de Maputo. Mhm. Euh, fàlluñu leen du ñuy yàlla yu nuy jaamu. Mhm. mais ñun ay député la ñu fal yoo xam ne nii. Euh, min ba nii jën si naa ni ko arabi di waxee sunuy xeet lanu mhm. ay pël joolaaki saraxuleeki wolof ñoo nekk ci assemblée ba njaay faal joom mbuub saar ñeneen ak ñeneen ñoom la ñu jiital ñooñu nag bu ñu leen jiitalee am loo xam ne nii dañ ko bëgg te li ñu bëgg bu sénégalais yi nga xam ne quarante cinq département yi signé bu ñooñu signé wuloon mais ñi nga tudd rek xalifa yëpp xalifa yi Sénégal lañu mais ñaar ñi nga xam ne ñoom nga njëkk a tudd muy sëriñ Mountakha Mbacké ca Touba. Hmm. sëriñ Babacar Sy Mansour ci Tivaouane ñoom ñaar dong mën nañoo wuutu mbooleem Sénégal ci seen signature jàngu baak jàkka ja nag mën nañ mën nañ leen a wuutu hmm. ñooñu dong seen kàddu dëggal ko jar na lu nekk waaye nag bu ñu toogee ba ñoo noonu le seen i kàddu ñu bàyyi mu naax say te du naax say nag hmm. te du naax say àla kulli xaal yi moom dafay dëggu kàddu kilifa yi liñ bëgg dañ koy defal ñii dañ koy def ñu lànk ko rek ñu falang lañ indi ñeneen ñu defal leen ko ñu defal na ko waaye ala kulli xaalin moom lii nu bëgg moom da dafay am hmm. loolu mooy ngëm-ngëm bi te loolu hmm. mooy li nga xam ne ni incha allahu taala euh, la ca kanam raw li bët hmm. su ko defee kon ñu waat sénégalais yëpp la onze boobu noonu la ñu bàyyi ci xel mooy le onze décembre dix heures ci suba bu jotee ñëpp ñëw teewee si conférence de presse ànd sàmm jikko yi dana am solo incha allah sëñ Babacar looy tàggatoo sëñ Maxtaar xanaa di <coughs> am mbégte di woo sénégalais rek ci plus de Euh, lu mu mën a doon lu ñu leen indil nañ ci tey ndax bari na ay programme yoo xam ne dañ ko yëkkati te loolu lépp yàq sunu penc mi la yàq sunu njaboot gi la euh, yàq yi tamit suñu mbatit suñu aada ak suñu cosaan loolu lépp it day mujj dal ci suñu diine suñu pas-pas yooyu yëpp bu ñu xefee ci euh, seen objectif mooy yàq ko kon sénégalais yi nañ gën a bàyyi nañ gën a vigilance nañ gën a farlu te bàyyi xel ni am nañu ñu nekkal ñu jege ñi lool te bu ñu sañoon kilifteef du am ci réew mi bu ñu sañoon diine sax dootu fi am bu ñu sañoon ak mbaax yi tamit dee su ko du ko wax nit yi dañuy mel ni fi mu ne ay bàyyi ma lañ lu neex waaye def niñ koy déggee ci yenn réew yi loolu nag du Sénégal mën naa valable feneen waaye du Sénégal gi kon loolu surtout jeunesse bi ñoo ngi leen ci di woo jëmmi député yi tamit ñi nga xam ne engagé wu nañu ñoo ngi leen di ndokkeel di leen ci loolu ñeneen ñi desit ñoo ngi leen di woo xamal leen ni lii du liggéey boo xam ne parti politique la yëfi politique la déedéet lii du mbir moo xam ne sax dañ koy askanale ànd sàmm jikko yi wala benn kuréel ci biir ànd sàmm jikko yi mbir la moo xam ne askanu senegal ñoo ko bëgg te askanu Sénégal euh, seeni kilifa ñoo ca jiitu muy xalif généraux yi muy amir association islamique yi muy mboolem mbootaay yi nga xam ne syndicalistes yi ak société civile bi ñoom ñoo bëgg lii ñoom ñëpp ku ci nekk ñoo ngi ak sa signature kon nag yéen député yi nangeen xam ni seen askan ñoom ñoo am lu ñu bëgg tey te li ñu bëgg yéen la yoon may ngeen man koo def kon askan wi fi mu leen soxlaa te joxoon leen mandat soxla na leen yónni leen ab yónnent boo xam ni gis nañ ngeen doxal ko suñu dëkkandoo bi ci koñ bi tey nag boobu yonent ñun bëgg nañ ngeen doxal ñu ko loolu ñoo ngi leen ciy woo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu vigilance boobu noonu la ñuy euh, dëggalaat rek ci kàddoom jeexalee ko mooy ñun ñëpp nañ ko jigéen ja nga xam ne nee nañ ko léegi euh, sa borom kër bu amee ay soxna pourquoi yow sañoo am ay ay ay jëkkër léegi bu amee ay jëkkër ñaari jëkkër nga am ñett léegi nga ëmb doom juddu ñu war ko ngénte kan moo ci bàyyam ban sant lañ koy jox soo mel ne duñ jëfandikoo seen xel yi ba tax li yàlla tëraloon a gën euh, fi may daanalee ci foofu nag mooy euh, association faj mer yi nañu ragal yàlla ñi nga xam ne ñoom la jox xont bi euh, di leen ko yafalee ñu jël seen làmmiñ yor rajo yeeg télé yi fu ne ñu wër fay mbel-mbel yi naan nangam ji dañ ko war a changer nangam yu ci bari yëg nañ li xew te nag danañ ñëw ci ñoom waaw ñëw ci ñoom dafa am farata ju nekk rek incha allah hmm. mais nag danañ ñëw ci ñoom yii nga xam ne Union européenne mi ngi ko bëgg yëpp Sénégal gi ñu koy bëgg a am na ñu ñu yónni yebal leen jox leen ni koppar ngir ñu wax ci rajo yeeg télé yi ngir doxal leen ba liñ bëgg ñu am ko waaye nag daa fekk rek yëguñoon li xew waaye gannaaw yëg nañ li xew ku fi wax rek danañ xam ku mu doon ak lu ko tax di wax loolu moom moo ci nekk hmm. di sant sëñ Babacar Mbour ci wuy si gi ci aaxiru zaman di leen sant ci seetaan bi incha allah ba émission bi ñëw dana euh, danañu dikkaat ci yeneen waxtaan waaye dinañ fàttaliwaat la onze bi incha allahu taala ngir mbokk yëpp man koo bàyyi xel conférence de presse su ànd sàmm jikko yi jërë ngeen jëf ci seetaan bi wasalaam texeeg tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam